Assalamualaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ma ngi len di dello ab nuyo di len delloo ab siyaare di len balu haqq te di len bal haqq tay ñaan suñu borom bo leenu jéggal di ñaan yalla suñu borom bi subhanahu wa taala ni mu ma nii munu maye tal akuk fekke ta ànd ak ak le ak sunum xel yalla nanu ko yalla may nu fekk ko at yu bari lool te lepp andak sax ci limu mu te musal nu ci lepp lu mu gërëmut lépp it andak wakir lu ci mom tam nangul nu ko lépp andak waxtu wona ñuy gën di yitté lu nuy jégel ba dina ca eggale wadis loo xamanteni dana sabab meram ndax ni mënu may ak fekke kat du sunu ngora du sunu njàmbaar du sunu yitte wér gim ci toftal nga xamanteni moy li gëna jafé jafe du sunu ngóora waaye mbaaxam la am la taw fee xam la kon no ngi sant yalla sunu borom cant goo xam ne am na amut yam nu delu di dénkante ak a fàttalante ndax waxtu wu ne doomu aadama dafa xaw a gaaw a fàtte te ku mu ci war nay bàyyi xel li nu boole li nu boole mooy yàlla sunu borom subhaanahu wa yàlla jaarale mbiram mépp ci yonent bi sallallahu alayhi wa gaay yàlla yi di ca wóotante ba agsi ci sëriñ Tuubaa xadiimal Mustafaa muy sunu kilifa nun ñëpp yoonu jaayante saxaaba yi doon ko def ci yonante bi sallallahu alayhi wa ñu doon ànd ak gaay yàlla yi ba ci Mawlaana Seyxinal Xadiimi ñu di ko feddali ñun ñii ñu yeesal sunu jaayante ci moom kon nak jaayante gogi war nañu xam waxtu wone lu mu doon ndax luñ waxal sunu bop la kum doon ci nun moko defal bopam moko waxal bopam am yene dundal ko it te jaayante garab la go xamanteni su fekente ni nit ki da nga dem fi birëb nga fa ak garab garab ga dafa am lu laaj tax garab ga dundu moy tax garab ga mag mooy tax bu waree am meññeen mu am ko mooy tax bu waree am ker nga am ko mën a jariñoo ker nga mën a jariñoo meññeen ma waaye su fekkente ni kat dangaa jëmbat sa garab rek donte suuxat nga ko ca njëlbeen suuxat gu yaatu it waaye nga bàyyi ko fa dem te toftaloo ca i suuxat nii lool la nga bëgg ca garab ga nga am ko ca kon boo ca sotti woon téeméeri bëri ngay ndox ca bis ba it te bis yee ca toftalu defoo ca am ndoxit su ta dakk da nga ñàkk garab te su boobaa meññeet ma nga doon séentu ci ker gooy toog doo ko am meññeet ma nga doon séentu it ci meññeet mooy watt di ko jëfandikoo it doo ko am kon bu ñu tàllalee sunuy loxo jaayante ngir yàlla ci sunu jëmm ak ci sunu alal loolee la koy jëmmal waxtu wu ne war nañ koy waxe war nañ koy doxe war nañ koy jëf te xam ni ak jaayante du màggat mukk te waxtu wu ne des ko war di yeesal ndax garab sax kat boo koy roosee muy màgg léeg-léeg dana soxna dana soxlaa taay ngir garab ga gën a rafet ngir garab ga gën a meññ léeg-léeg it am produit yooyu da ko cay def ngir garab ga gën a mel nanu ko bëggee jaayante lan mooy li waral mooy bëgg a jooxi te mucc ci seytaane mooy bëgg a àgg ci yàlla am ngërëmam te mucc ci seytaane kon loole yaakaar naa ne ki ko def war na koy sàmm war na koy bàyyi xelit ci anam yëpp ci fànn yëpp loolu nag dundug ruux la dundug ruux nag dafa wuuteeg dundug yaram sunu yaram yii ni nga xamante ni comme doon ci noonu su xëyee dana soxla laal ndox soo noppee jëfandiku def yëfi séréer su beccege nga defaat ko su guddee nga defaat ko lolou feeg jamba ngi dundu takoy soxla feeg nit ki mi ngi dundu rek dana soxla añ ak reer ak mu diko matale su ko su ko ciak su ko ca soxla yi di nan ndax yaram kat bu lekut nanu dana am ñu jeexital ci yaram waye ruu yi tamit bu nit ki sàbbaadut yalla tuddut yalla sorib safan so bobay dana jeexital ci nit ki ni nga xamante ni sa ruu feeg yaa ngi du sa yaram feeg yaa ngi dund da ngay soxla muy set nga di ko toppatoo ci ay metit ak li koy gaar lépp ruu noonu la ware feeg nit kaa ngi dund boo dëkkee say loxo di góorgóorlu ci jaamu yàlla di góorgóorlu ci maanu di góorgóorlu ci rafetal loole amul benn jant boo xam daf lay wàcc kon digal yi nañu ko fonk bu baax muy jàng alxuraan bu ñu xëy mukk ba jant sox dong ko te defuñ ci dara sabbal sunu borom buñ ko tongu mukk jang nuru ni jalibatul marahib ko ko ci man khasida rek nuru ni moy ndigal li waye khasida amna ci ñoy xeyna jalibatu lañ ñen jox waye lu mu ca doon nit ki bu mu xey ba jant su ci defu ko dok yi ngay def ci zikri it nga fonku ko ndax nit kat so tuddu yalla do jang alquran te yoy dañu wax ni tuddu yalla moy ngànnaay li dox suñu digënté ak shaytané yow nga sàggane ko tek ko né yemoo ci kët yaangi ci wéranté ba wax lu sa yoon nekkut di jëf lu sa yoon nekkut di melewoo lu sa yoon nekkut su boba na la woor ni kat da nga dem ba yegg ni yow mi woyof nga toy te fekk la ko waral lepp ci yow la yow ya duxut waye nak ba nga dékkee say loxo dafa am lu ñu digal ci tuddu yalla am lu ñu ci jang alcorane am lu ñu ci jang qasida te loolu lépp dara génn ci sàbbaal sunu borom dara génn ci sant sunu borom dara génn ci tuugal sunu borom dara génn ci ñaan sunu borom kon loolee day war waxtu wu ñu di ca sax te bañ ko sàggane te bañ ko foye ndax kum ci doon kat ba amee nopp bi metti mbaa bët bi metti mbaa biir bi metti mbaa tànk bi metti mbaa bopp bi metti faw da ngay dem seeti doktor ngir bëgg ci ak wér waaye ndax nun danañ dem ba seetlu ni ah man mii de temps yii li may sama yoon nekkut bari na de ni nga seetloo sa bopp bi metti boobu seetloo ko sa nopp bi metti seetloo ko sa tànk bi metti seetloo ko sa biir bi metti ak sa yaramu tàng war ngay seetlu nag léeg-léeg ba xam moo man mii ndax sama gëd yi booy lu ma ko ci lu noonu ba mu ëpp ndax sama nopp yi booy lu ma ko ci lu noonu ba mu ëpp ndax sama tànk bi booyu ma ko booyu lu ma ko rek ci lu ma amulul njariñ ndax man mii nekkuma di gis sama bopp ci anam gu man di doon di xeeb nit ñi ndax man mii jëfuma ba noppi di ko naw ndax man mii rëyuma ndax man mii njistaluma ci lii jëf di jëf ngir nit ñi te jëfuma ngir yàlla ndax man mi añaaniwuma jaami yàlla yi li leen yàlla defal ci ay ngëneel ci xeet yu man di doon ndax man mi nekkuma di rambaaj di yàq ab diggante bu war defaru ndax man mi nekkuma di tudd nit ki fu mu nekkut ci di ko jëw ni ngay seetloo sa yaram wii noonu nga war a seetloo ci jikko yooyu ndax lu ci na day gànje ndax li nit ki di ci yaramam ci mettit am na ci loolu bu ko fajut mën naa doon jàngoro joo xamante mën naa dem ba àgg ci mu ñàkk ci bakkanam nit kiit loolu muy yëg ci wàllu ruxaani ya nga xamante ni moo koy gàllankoor ci digganteem ak boroomam bu ca wutut saafara mën naa dem ba loolee mën na ko jural te xëy di ëllëg wal xiyaasu billah kon maa ngi leen di dénk tey dénk sama bopp ñun ñëpp nañuy góorgóorlu di nemmeeku sunu bopp di nemmeeku suñuy jikku di nemmeeku suñuy doxin di nemmeeku sunu waxin te bañ a boy rek waaw werantew àdduna nañ koy daw te yaatu na lool ci nun léegi yaatu na lool ci nun rawatina xew-xew yu politique ci àdduna bi ak ci sunu réew mi nu nekk ngalawaay kum doon ci yéen am na sañ-sañu ko ko doy ci diineem ak ci doxaliinu addunaam mu yaakaar ko ca tam mate ko carte wam am mu jox ko ko ci jàmm ak salaam te bañ caa boole benn werante noonu mu ko amee sañ-sañ ci boppam ci yaakaar ci doyloo na ko may keneen nit kooka it am yaakaar ak doyloo ca ka ko doy moom itamit bu defee ko noonu lépp am ci jàmm ak salaam te ngeen daw werante wi moo xam ci pénc mi yi nga xamante ni dañuy janloo ay jëmm wala ci pénc mi nga xamante ni mooy péncum internet bi loolu na ngeen koy daw waaye topp téléphone yi kat mi ngi sànq suñuy dund de gi day jeex. dëgg gu yi mi ngi yàq suñu dund de ñu ngi ciy sànq it dund te dund gi day jeex te dund gi seer lool ba dem te damay wax waxtu wane ñi ko ñàkk dong nga ko xam. waaye nun ñii ko amandi nañ ko téye te bañ ko sàggane te bañ koo faye nañ wattandiku téléphone bu ëpp bi nañ wattandiku réseaux sociaux yu ëpp yi la la ca amal njëriñ jël ko waaye fi mu nekkat mi ngi ñu yàqal sunu diine waaye mi ngi ñu yàqal sax nag sunu àdduna kenn mënatuta waxtaan fenn ay bokk sax léegi suñu dajee war a saafonte xam lan riir ca biir yàqu ca biir bokk ga ñu koo defar mën kenn ku ci nekk namanti koog morom ma ñu waxtaane lu leen di jëriñ ci seen diine ak seen dundin sax mënatuñ ko ku ne yaa nga bokk ci sa téléphone. ba ci biir kër gi léegi soxna sànga ak téléphone borom kër ga ak téléphone doom jaa nga ak kenn ku ci nekk fooyu fenn mi ngi yàq sunu diine mi ngi yàq sunu dundin kon nag maa ngi leen di dénk nañ ci bàyyi xel nañ ci bàyyi xel nañ ci bàyyi xel. nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ci téléphone yi nañu wattandiku bu baax a baax a baaxit it werante yi ci anam gu mën a doon kon maa ngi leen di dénk tey dénk sama bopp bokki taalibe yi ak bokki jullit yi ak bokki jaame yàlla yi ñun ñëpp nañu dellu si waat suñu xel tey wattandiku di jeexal sunu dund ci loo xam ne buñ dajeek sunu borom réccu dong moo cay toftalu nun ñëpp nañu xam ne dund gaa ngi jeex de te kenn xamul fu sa dund di yam nanu rëccu li weesu ci safaan te li ci sunu kanam ñu màng ko ci dox ci jëm ci aw yiw te yar ci njaboot gi te yar ci njaboot gi nit soo amee ak njaboot yow ci sa bopp yaru yaru du weesu de jàng it di weesu ci berson ba biñ lay tëral ci jaar jàng di weesu te léegi diir bi ñuy def ci réseaux sociaux yi mag mu xamut sa diine boo ko defee ci réseaux sociaux yi da am diine danga xam danga am xam-xam lool fees ci dell ndax làkk woo dem téere bu ne firi nañ ko ca te soo ko toppee li leen ci sa diine lépp da ko mën a xam ci diggante bu gàtt. mag mu jàngutoon amoo layu mënatumaa jàng ndax bu njëkkoon sax ba yi xewagut ndax nun dañoo am xéewal goo xam ne nun xamuñu ko téléphone yi xéewal gi ci nekk nun xamuñu ko bu njëkk mag mu jàngututoon da nga am kersa lool ne naa dem ca jàkka ja wala naa dem ca ustaas wala naa dem ca imaam wala naa dem ca sëriñ ba mu jàngal ma nangam ndax léegi mag laa léegi nag yaa ngi ak sa téléphone yow dong ak yàlla ci sa biirum néeg masala mu la réer téere bu la réer mën nga ko jàng te yoon kenn du ca nekk kenn du la xamal dara nga mën cee dem ba fees dell ci sa diine te kenn du la xamal dara booboo génne loo wax muy diine lu la réer ci jikko nga mën koo xam lu la réer ci tawxiid nga mën koo xam lu la réer ci fiq nga mën koo xam nu wàcc loolu lépp nag sànq suñ dund ci wax ne amul benn njariñ te soo ko toppee ba keroog ngay déconnecté soo noppee da ngay gis néewoo woon ci dara sa bopp da koy xamal sa bopp man mii de néewuma woon ci dara ndax du la dikk dara boo ca xamee nag benn masala boo xamante ni ci wàllu jikko lay jàngalee nga téye ko loolu dana la dimbali lool kon mag ñi na nu feexee gën a xam seen diine ci la leen rëccoon ñu dab dabaatal la weesu te la weesu ñu tuub ko te jéggalu ko te laj seen kanam ñu rafetal ko te xiir ci ndaw ñi ubbi leen ci yee leen ci balinu dal mu bañ leen a dal ñoom ndax léeg-léeg kat nga gis mag mu soqiku bi jaaw di wax moo xam ci yàlla lay wax moo xam ci yonent bi lay wax moo xam ci sëriñ tuuba lay wax te léeg-léeg lam cay wax dara du ca doon dëgg du tege ci benn njàng ay nit lay doon ak xissa nga defee ni góor gii kat fekk woon na maam diw wala mag mag ci magi réew mi wala ku baax ki wala nangam te fekk na moom li muy nit li lépp dara du ca dëgg. boobu loolee muy wax booba xamu ca dara te jàngutoon dara te amaana ci woon dara te amaana mu doonoon koo xamante ni kat ku daan wax lu dul noona la. ba tol noonee mu tol ndax nit ki kat fi mu ne noo mel ci sa ndaw te ca jug soo doonee mag noonu mag mu mel noona dong ngay doon. su doonee gone gu gone guy wax lu du dëgg la te jugu ca saa su doonee mag mag muy wax lu du dëgg dong lay doon su dee mag muy ramba gone guy rambaaj la te jugu ca su doonee mag mag muy rambaaj dong lay doon su dee gone guy njistal it te jugu ca su doonee mag mag muy njistal dong lay doon ba ci jikko yep lo ci top te nit ki jiheetutug bakanam ci ndawam ba lolé set wicc ci mom su doone mak mel woowa kep So nek ci mom su ko defé nak nga gis bo ku ko ci bi jaaw di wax nga defe ni ki li ñuy wax deug la te fek dara du ci deug nga du ci sukkandiku naan maam di wala bay di xana ñi mu wuta wax lu deug te fek lamay wax du deug lolou lu mata bayi xel te lolou lepp li tax muy dal nit ki ñak xam fi mu wara tek tankam rek ba léegi yow da ngay deglu ci nit ñi rek hawil lisanaka khawlal xawwit lisaanaka xawlal xayri tuxsa sa inal lisaana li ma xawata yaxtaadu sa làmmiñ wii tamal ko wax aw yiw tamal ko wax juy defar tamal ko wax wax ju yiw say nopp tamal ko diggu diglu aw yiw say gët tamal ko xool aw yiw say loxo tamal ko di ci jëf aw yiw say cër say sa sa sa sa sa cër yëpp rek lu ci ne tamal ko jëf aw yiw lum ci doon loo ko xas tamal boo doon màggat ca loola ngay faatoo ndax léeg-léeg wolof na jikkook borom pax buñ ko yarut téqalikook moom ci ak ndawam waaye nit lu màggataale kat màggataale loolee kon maa ngi dénkaat sa bopp nun ñëpp nañu xoolaat sunu bopp nun ñëpp nañu seetaat sunu doxin nun ñëpp nañu xoolaat sunu melo ci gën a góorgóorlu ci sunu diine gën a góorgóorlu li na war sunu digganteeg sunu boroom bu baax a baax a baax te gën cee def pëstéef te gën ci am ak farlo di sabbal sunu borom di ko jaamu te sellal ko set ci sunu jëm set ci sunuy sir set ci sunu birb te boole ci di gëttu buñ koy buñu sabbal sunu borom subhanahu wa taala ku mu doon ci nun bul bëgg aw tagg wax naa ko waxate ko bul ragal aw ŋaañ wax ko waxate bul xoolit nag nit ñi ci li ngay jox bu len ci jox ben cër xolal jëm yalla nit ñi kuy wut seen am ko lu faat la kenn mënta am ngërëmal nit ñi ku la ci xey gërëm la man na gontu xarab la ku ci gontu xarab la man na xey gërëm la ndax ci seen bakkan ak ci seen banex kep ci li ñuy gërëme ci lañuy xarabé feeg mel ni seen bakkan bëgg ak ni leen neex ñu lay ak gërëm fuñ toll sa so ni noppé mel da xarab ya daanu sina juru ñoo xol xool li yàlla bëgg nga ne ci li yàlla bañ nga daw ci ci lu nëbbu ak ci lu feeñ sunu jaayante nañ koy dëggal te xam sarti jaayante nañ koy nafar nit soo bëggee jariñu dikk sa ñaari loxo jaayante jëmm ci yàlla xamal lan la jaayante laaj ci dëggu ci bëgg te yàlla tax toftali ndigal ndax yow ndigal liñ la jox ya nga ci wala déet ndax bëgg gi it wër na ci man wala déet te bëgg dafa am lu koy suuxat te bëgg it dafa am ku bëgg nu muy def ku mu doon lam bëgg xam na nam cay def nag du jar kenn di ko tojal kenn ku ci ne lam bëgg rek xam na la lam bëgg moom lam ko jaral ak lam cay def seet ko bu baax nag toftalu ci ndigal top top ndigal ki sak tànneef ak ñàkk garal yooyu waxtu wane nañ koy nafar te di ko bàyyi xel ndax sart la yoo xamante ni que nit ki su bëggee jéggi yaa sa jokkookaay am nga koo bëgg a jot benn araf boo ko ci bàyyee doo mën a jote mukk day mat sëkk nga mën a jot ka ngay jot bu ko suñu borom dogalee kon nag nanu bokk gën a góorgóorlu bu baax te bokk gën a farlu bu baax muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw borom kër yépp maa ngi leen di dénk nanu gën a góorgóorlu ci yërëm seeni soxna di leen jéggal di leen jëllale te yàlla tax kilifa kat day am yërmande kilifa day dëggu kilifa day dëggu kilifa day wax dëgg kilifa day def dëgg kilifa day comportement comportement bu dëggu dana dimbali ca kam yilif kuñ yilifit da ngay nangu ak kilifteef gu mat na ci ndigal di daw tare la sa kilifa bëgg nga di ca dox lam bañ nga diko daw lam bëgg jur nga xaar mu dila ko wax lo ci yëg ne ca lam bañ jur xaar nga mu dila ko téré lo ci yëg daw ko ku ñilif kat da fay am ak nangu nangul sa borom kër doon ab talibim diko sukkal ak raamal ngir yalla lolu yi taxa am barke soxna yi nañ ci gorlu tay muñ mu nakari nga muñ mu neex nga muñ ndax sey neexut léeg-léeg jafe-jafe àdduna am waaye soo muñee a ah, àdduna saxut ci fi benn béréb nit dana nekk fu nooy lool xëy mu ñagas lool danga nekk fu ñagas lool xëy mu nooy lool lu ci doon nag muñu rek ak sant loolu it soxna yi ñoo ngi leen koy dénk bu baax ñu dollee gën a góorgóorlu te du doonee gën a farlu ku mu doon ci nun bul yéene sa mbokkum jullit dara ci ab safaan bul ko ko wax bul ko jëflante ak moom képp ku ñaawal jëmale ci yéen rafetal leen jëmale ci moom ngir yàlla roy ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bul ni kii kii faaw ma diggaale ko moom kii dana xam maay kan kii danaa ko teg ci aw yoon lim ma def duutu ko defati bàyyi ko man rek déedéet ñaawal ku ñaawal jëmale ci yow rafetalal jëmale ci moom ngir yàlla roy ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nañ ciy natt sunu bopp ku la dog na ko jog diw nuyu siwu ma yooyu yépp dana xam ne man man la ko séqal déedéet yow jokk ko loolu la yonent bi sant sallallahu alayhi wa sallam ku la dog jokk ko ku la xañ nanga ko jox diw day ba muy séddale séddu séddu ma xawma fu mu ko teg ak lu ko waral waaye ba koog man déedéet bu mu la ci fekk yow boo yoree looy joxe ngir yàlla joxeel te yàlla tax deel jëflanteeg nit ñi kem ni nga bëgg ñu di ko jëflante ak yow ni nga bëggee ku la wet ci sab der weg ko ci sa alal wegle ko ci sa njaboot yow tamit kem noonee nga ko bëgg ci sa bopp bëgg ko ci sa njaboot nanga ko jëflanteeg bindeef yépp te yàlla tax nun ñëpp nanu maase xam ci ne nooy kuutaayal yàlla ci kaw suuf suñ borom kat la mu waxoon ni Daawuda def naa la ngay sama kuutaay ci kaw suuf bépp aadama ne def naa la ngay sama kutaay ci kaw suuf waxaat ko daoud nun ñëpp ñu atteb aadama lañ amee atteb daoud lañu amee ku mu doon li tax suñ borom bind kaw suuf ngir bëgg ñu di ko dundal jàmm am fi ak dal am fi ba keroog ñu di gental di ko bàyyee nun ñii bu mujj pousse bu mu réer kenn ku nekk na jàpp ni adduna la koy jagal ci moom la war a bàyyi ko lay defar diine ci moom la war a loolu maa koy dénk sama bopp di ko dénk bokki taalibe bi yëpp ak képp ku di jullit ak képp kuy mbindeef moo xamante ni yàlla dogal ngay déglu kàddu yi donte ko doy di lañ nag ci xeebu waaye jaam bu ko mën di dégg te jàpp ni dara lu ko amal njariñ mi ngi ci maa ngi ko maa ngi koy dénk loolu ndax ak lay biirante rekk la kon nanu bokk gën a góorlu bu baax te gën a feetliwaat sunu laxasaay bu baax te gën a farluwaat bu baax Nun ñëpp yi nu boose euh, boole euh, maasewaat ci waajal bis bi nu dëgmal muy fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar ndax li ñu fi waxtaane lepp kat lool rek la sëriñ bi doon dund lool rek la bëggoon buñ ca dajé yit mbolo fu ñu dafa am dañ koy soxla ci aw nekkine ci lu ñuy jëfëndiko ci ak ci fu dal ak ci lu ñuy xewlo waye leneen fa dajalé ñu bokk xam ko muy yalla mi leen bokk bind mom leen melal leen katanal leen ñu fàttalante ko fa kaw suuf si nu indi it li tax mu indi ñu fi ñu fàttalante ko fa xam ne dañ fiy bàyyikoo it ñu fàttalante ko fa bu ñu fi bàyyikoo it fañ jëm it ñu fàttalante ko fa ba ku ne su boobaa jikko yi ñu fi waxtaane boobu ba léegi dana mën a fees dell ci yow te dana mën a matale ci yow sëkk loole ñu bokk ko waajal nun ñëpp kon maa ngi dénk sa bopp nu wéet ak nu wétliku nañu xam ne ndigal yi dara màggatu ci te waxtu wu ne it kàddu giñ jaayante wax ko nan koy yeesal ci sunu jëm di ko yeesal ci sunu alal ndax no jaayante de la koy dundal nak nima ko waxe ci njëlbeen kenn ko ci nek ca loola la war di xey ca loola la war di gontu ci waxam ak jëfam ak melom ma ngi ñaan yalla sunu borom bi nga xanti de dara ko mu maynu guddu fan tem and ko wër te bokku nu saxalu ci siratal mustaqima te dox suñu ak shaytané te musal nu ci mépp ndok ak pak ak musiba ak balaa te kenn ku ci nekk lay yéeneem ak mébétam sunu borom defal ko ci lu kawe njortam kenn ku ci nekk la muy yóotu di ko ñoddi ak a xëcc ci aw yiw ak tawfeex ak jàpp dal yàlla na ko ci yàlla defal lu kawe njortam. ku mu doon ci noonu lam ragal ko ci boppam ragal ko ci njabootam yàlla na ko yàlla teggil ku ne la ko naqari ci boppam yàlla na ko yàlla teggi ci mbaaxam ak yërmandeem ak taw tawfeexam noo ngi leen di sante te di leen gërëm di ñaan sunu borom tanki ñëw gi ak delu gi lepp di tanki njëgal di tanki tawfiq di doon yokkutew fan du doon te wir di doon te jam ak sutura ak karange lu bax ko ca nekk da ngay woy de deggul ci sa bop waye woyal ci sa bop nit ñi ne da ngay ne ci lu bax ñu wax ba génn la ca te duñ la tek ci dara da nga yor sa bantu burus ŋàbb ko mu amal lañ jariñ lool ba foko tak takk mu weesu ko ñu san loola ko fo xay ci man te jotati li gëna bari te bantu gattax sax duñ la ko jox nit day woy ci bopam di xalaate bop di xalaat ci bopam te baña a ci xalaati nit ñi ak ci yaaka ci ci waxi nit ñi ci seeni ak seeni ndax ku ne ci xamna bopam lu la nit man di njortal mbaa mu xalaatal la ko mbaa mu foogal ko yow am nga loo xam ci sa bopp lu wér kéng lu set wecc lu leer naññ duma ko wàcc nag di dem ci li nit ñi njorta ko foog ci man asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu loolu ñi ci féete ndakaaru yi ndigal lële ma joxe ca ndakaaru yi ñu bàyyi ko xel ku fiy liggéeyee ndakaaru hmm. bis ya ñuy def foofa di ko daje ci diiwaane ku ko ci dégg na dem teew ca hmm. fii tamit ngeen seet moo xam weer la moo xam par fukki fan juróom la yéen ñi dëkk ci biir dëkk bi fukki fan ak juróom yu ne hmm. dee leen daje fii di jàng alxuraan di jàng xasiida bu ngeen noppee fàttalante sëriñ bi dund gi daa gàtt te kenn xamul fu sa dund di yam li nu war mooy nanu yeesal sunu yitte nanu yeesal sunu yitte ndax ku yitte woo yalla yitte wala nen kenn du ci tok ci fiix de kenn ne du ci ne ci fiix ta ne bu ngeen daje wut fi di jang alquran di jang qasida di tuddu yalla da ngeen daje ci jataay yu amul benn njariñ kenn kenn kenn munta nekk faaw ngeen di def kon nak de len daje fi di tuddu yalla di sabbal yalla di delu ci yalla di xalam sunu borom mooy li ñuy amal njariñ tey mooy li ñuy amal njariñ ëllëg mooy yi wu jeex mukk mooy koom mu jeex mukk yi ci des yépp fi lañ koy bàyyi te jeex na ba noppi asalaamaaleykum wa rahmatullah wax naa ko ay ndaje ba bi waxul ñu nekk bitim réew waxul ak ñeneen ñun ñii lay waxal ak njabootam lay waxal kàddu yii di génn ci ci ci ci ci làmmiñam sell wii ñun njabootam gii ñoo ko moom ñoo ca war a jiital suñu bopp keneen taftalu ca keneen taxu ko muy sonn kat njabootam gi ko tax di sonn te ak njaboot nag amu ci lu kawe suñu jëmm yi ñun ñu jaayante ak moom kon nag war nañoo gore war nañ koo noppalit moom bu ñu ko bëggee noppalit moom noppaluwul ndax li ko yàlla teg xam na ko te ma nga ca buñ ne woon sëñ bi noppalu di noppalu fu ñu toog bu doon ab seconde sax ñu dénk waaye nag ñun ñoo war a xam suñu bopp li doon wax naan ñaari murit fu ñu daje ay weññu xomaat lañ dañoo war a jonjoo am na ci loolu du fa àgg waaye nag junj nañu ba tàyyi nag te borom yi xel lañu kenn ku ci nekk ay borom kër a fi ëpp te sa kër xam nga ko kon nag yàlla niñ ci war a doxee moom mii mi ñu koy wax kon war nañoo am xel mu mat sëkk di xam nan la ñuy doxale suñu diggante ak jëmm ji danaa ko wax nag man sama yitte yittee mbokku taali bi yëpp jëmm jii rek la war a doon warul nekk leneen lu dul moom wallaahi warul nekk leneen leneen lu dul jëmm ji kese loolu yàlla defal keneen nag nangu nañ ko waaye moom la ñu yàlla tawféexale te tawféex gu mat tawféex la nag ku ko dund xam ko lim ñuy fàggul waxtu wu ñu tëddee ci suñu lal yi nelaw di xaran di biddanti moom mii li ñuy fàggul xamuñu ko te ñu ngi koy yëg ci suñuy jëmm wér dox na sunu diggante ak sunu borom. doxin gu wér a wér te ku ko dund xam ko. li may wax nag dama koo xam. moom dane bu kenn waxee foo foo àggewul. waaye ku sunu borom defal tawféex ci jëmmam it war nga koo feeñal. te kenn ku ci nekk am na loo ci xam am na loo mos ku nekk fa mos gën a fa mu yem. ak la ci yàlla dogal ci yow. waaye moom day as gor la. gor su set wicc. te dafa bëgg nag ñun ñu gore. dafa baax de. lu jàkkaarloog Ousmane Dieng mukk naan ko sëñ Ousmane ni ngay moye na ngay nàngama ay taw fe ay tegginam ci suñu borom àggulu waaye nag dana waxee yow foo xamee boo génnee dinga xam ne yow mii lay waxal am na ci loolu ñun ñoo ko mën a waxante suñu biir ndërmeelu gi metti na laxasaay yi woyof na tekki nañ ko sax ñu ci bëri ci ñun tàmbalee ci man tekki nañ ko sànni ba pare bëgg na maawul xayaat lañ bëgg nañuy waxante dëgg suñu biir suñu jot na de dafa jot ñu waxante dëgg jëmm ji bu ñu rëccee musiba am de bu ñu rëccee musiba am te loolu waruñu koo nangu suñ borom nag du ñëw waaxu ba ñëw ci yow ne la maa ngi nga ne yàcc na yasar sama sama bopp laa koy tàmbalee li may wax man waxuma ko benn jëmm fii maa gën a doyadi ci mbooloo mi te moom xam na ko maa fi gën a doyadi maa gën a ñàkk solo waaye nag lu ma doye di doye di doye di wallaahi lazim su ma doon mooy yàlla ba di yëg na maa ngi koy mooy man la may bëgg mooy di dolli ko ci moom fu ma toll di ko gën a bëgg te looloo ñu jëriñ nañu bëgg maawul xayaat te mu dëggu ci ñun alal ji soxlawu ko gis nga moom yàlla dana ko defal lépp lu mu bëgg loolu ji jiitu nañ ñu koy xam gis nga ñun ñëpp suñ téye woon suñu alal yi nga yaakaar ne junni yeeg ñaar téeméer yi ñu koy jox fii moom mooy doxal lii dox doxalul dara li muy jëmmal ñu di ko gis sunuy bët fii kenn dofu fi ñun ñëpp kenn doful yàlla may na ñu xel yu ne jar da ngay xool suñu penku bi ñu jàkkaarloo rek lii fi taxaw yaakaar nga ne suñu ñaar téeméer ko taxawal kan la fi ñaar taxawal lii. gàcce am gàcce gu wér Cheikh Saliou demuñu fenn fii kenn jaayagu fi sa kër jox sëriñ bi. kenn joxe joxe gu fi sa bakkan ngir sëriñ bi te murit yu njëkk yi nag lool noonu lañ doon dund ak sëriñ Touba te yaakaaruma ne nag sëriñ bi sëriñ Touba won na murit yu njëkk ya lu raw li ñu maawul xayaat won te lu wér lañuy dund nag lu wér a wér lu wér te loolu dañ ko war a xam sëñ bi nañu gore nañu gore nañu gore ci sama bopp laay tàmbalee man maa gën a gore di ñëpp ndax li ma jëmm ji defal man fa maanaam dama waroon mooy nekk ab jaamam nekk ab jaamam mu sañ maa tëy tër rendi am na ci sañ-sañ te defuma ko maa ngay korkoral lu ma am sama njaboot laay njëkk a jox ba pare doo ko jox sëriñ bi yitte ji bi mu ko wootee ba léegi sama bopp laa koy tàmbale am na ñoñ bu weer dee duñu xalaat yitte ji ci sama bopp laay tàmbale moom xam na xam na ne man ci ñi ci ñiy yéexal laa bokk te waruma kersa ak gàcca la sëriñ bi moom lépp luy ndamam ñun dañ caa war a ne bu dee li ñu woote dëgg la ci ñun lépp luy ndamam dajaa war a nekk ñun buñ ko ndamloo dana ndamu buñ ko ndamloowul dana ndamu kon nag nañ fexe ñu bokk ci ñi koy ndamloo bu ëllëgee bu gersoo xam ne ñun kat bëgg gi ñu koy woote lu wér la ci ñun ndax nit mënu koo bëgg ba pare te lay tax mu am ndam doo ca ne moom yàllaa yor ndamam benn doomu aadama mënu koo teree dem nag benn doomu aadama ak pexe boo mën a am ak xalaat boo mën a am nañu xool bañ ko dalee pexeel ak léegi suñu borom da koy gën di yëkkati rek am na lu ñu fi fekk am na lu ñu fi fekkul am na ñoo xam ne dinañ ko fi fekk te te te te pexe yi jeexagul nag pexe yi jeexagul de te nii muy waxee nag mooy waajal ay soldaaram te soldaar yu dëggu yi ndax lii metti mu ngi ci suñu kanam loole loolee Seydina Isa waxoon ne balaa fajara jot ñam àndaloon di di nga di nga weddi ñetti yoon ne masoo maa xam nañu moytu loolu. te tar tar dong nga ko tetar te tar aduna dong ñi na samusun sam sun bakkan mo taxon ñu weddi won ne ah, ah, xam nañ sayyidina Isa alayhi salam kon nak jamono dina dik bu ñu waajalu sunuy jëmm waajalu pas-pas ndax xam nga mawul hayat teppetu nga ngay def bu fekke dëgguwoo sunu dund yi du dara señ bi du dara boko ko demal bàqee am ñu ñu gën fa teud ñu ñu ay yitte te amuñu tawfiixu liñu am asakaay asakaay li dund ñun amuñu ko kon daraja warul tax ñuy dund bëgg aduna warul tax ñuy bëndu ay soxna ak ay nangam ak yoy yëpp warul tax ñuy dund soxna yi lu ñu leen lu ñu mëna jox ci banex benn seconde bi ngay yëg ci maawul moko du du morom sax maa ngi tuub sax ci ci ci gi du benn du benn nañu laxasaat yi te sun sun nañu laxasuwaat te ànd ak jëmm ji te doyloo ko te wolu ko te yaakaar ko ma ngi tuubaat bu baax mbàkke ci kaddu yi ñu sa kanam ma ngi bu man sab jam la man mbàkke sab jam la dama bëgg mbolom ñëpp xamne ne man jaamu maawul hayat la ay jaamam lañu wara doon ab jamat nak day nangoo nekkub jam ab sangam di ko sañe def lu ko te du um.